Oui, euh, je fais c'est une réaction de, de joie. Euh, mbégte bu rëy la am di si sant yàlla suñu borom nga xam ne nañ ko ñaanoon victoire bi mu yàlla maañu ko euh, ñu koy gërëm di ko santaat di sant aussi ñëpp ñoo xam ne ñoo jàpp ci mi mooy encadrement technique bi mooy supporters yi mais aussi joueurs yi ak ñëpp ñoo xam ne ñoo jàpp tout autour de l'équipe que ce soit les enfants Euh, en fait toute la Casamance naturelle était ñoo xam ne ñoo jógee Kolda ñu jógee Sédhiou ñu donc Casamance dafa nekk benn équipe boo xam ne c'est un facteur d'unité de di lool euh, di ñaan yàlla rek ñu préserver unité bi solidarité boo xam ne am na autour de l'équipe je pense que loolu yeneen ci bu ko sant yàlla di féliciter les anciens euh, c'est compliqué Non, c'est vraiment une fête, une belle fête pour nous, hein, parce qu'on l'a attendu depuis cinq ans. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'apothéose. Après une saison comme ça, je félicite les gamins, ça nous, ça rajeunit nous aussi. Ça nous rajeunit. Ça fait tellement plaisir. Et je dis merci à tout le monde, je merci aux supporters, aux joueurs, aux dirigeants. Mais c'est une journée exceptionnelle. J'adore, j'adore. Merci.